asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu gur watawaaso bil xaq dajj bida shirik ak bépp jikko bu suufee waa tey ñu ngi invité suñu mbokk Ibrahima Mboup waa kooku la ñuy dalal tey nañu waxtaan ak moom waxtaan bi dans un premier temps ay question réponse lay nekk ku si am question rek euh, mën nga ko yónni benn administrateur bu nekk en ligne soo gisee administrateur bu nekk en ligne mën nga ma ko yónni man dinaa leen ko jottali dugal leen la ko si groupe bi euh, dans un deuxième temps nag suñu yeggee ba yegg fu ñuy pare questions yi daanaka dinañ dugg si contribution yi dañuy wax seen xalaat ak nu ko gisee ak peut-être est-ce que dund nañ lu ko niroo ak euh, luñ ñu si mën a yokk rek mais boobaa nag dinañ ubbi groupe bi pour ngeen mën a joxe seen xalaat tamit boobaa dina fekk question yi waaj a jeex ñu war a dugg dans un débat noonu lañ ko defee et première question bu ñuy posé rek mooy suñu mbokk bi Ibrahima Mboup na su doon présenté boppam naka la lu muy wax ci moom pour nit ñi kon ko xam waa groupe bi xam ko pour affaire bi ñu mën a tàmbalee foofu ubbaale ak question boobu en premier waa groupe Watawasaw bil Haq ñu ngi leen di siyaare di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay euh, di leen ñaanal tawféex di ñaan kenn ku ci nekk ci mission bi nga nekk yàlla nga ko commencé ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamina te yàlla may leen gudd fan ak wér gu ngeen mën a yeggale seen mission waaw man Baye Ibrahima Mboup laa maa ngi juddoo Castor 1968 màggee jëppal waaye dama teel a génn Sénégal bi mu am ñaar fukki at daanaka wëndeelu naa ci réew yu bari États-Unis daal laa xam ne moo ma desee pour ma mën a jeexal àdduna bi dem naa ci réew yu bare bare bare bare bare seen groupe bi nag man li may njëkk a wax mooy naka laa def ba intégré ci groupe bi maanaam dama déglu YouTube maa xadi moo ma attiré ma gëstu def ay pexe pour mën a dugg ci groupe bi léegi nag aw ma fu may jaar parce que xaw ma fa kenn waa ji nga xam ne moom la ñu tojoon këram laa gis YouTube mu def fa numéro téléphone am ma jokkook moom moom mu jokkook waa groupe bi gaa yi dugal ma dugal bi nag ñu ngi ciy sant yàlla parce que boobu ba léegi li ñuy déglu mu ëpp li ñuy dugg waaw parce que groupe boo ci duggee te xamuloo ñi ci nekk maanaam da ngay déglu ba pare ba xam ñii fan lañu teg seen ay tànk bi ma demee nag ba ñemee ba gis ni yéen fi ngeen teg seen tànk fu wóor fu dëggu la ci laa commencé di participer ci groupe bi te ba teyit li may déglu mu ëpp waaw Bachir loolu mooy nuyoo bi asalaamaaleykum wa rahmatullah léegi maa ngi déglu seen ay. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa mbokk ji ñu ngi fay sa rafet rafetlu. Euh, fu nga daane rek laa bëgg comme tàmbali c'est-à-dire que da ne groupe bi maa moo tax nga xam ko nga ràññee ko déglu lu mu doon wax waaye ñu ñëpp xam nañ ni kàddu maa xadi dajji la kàddu maa day. xixat ni ñi pour ñu jóge ko ci tarixa yi waaye man sama première sama première question foofu lay tàmbali kàddu euh, maaxat dafa mel ni discours boobu si moom ko ñëkk déggee wala am na feneen foo ko ñëkk a déggee. asalaamaaleykum Modou Gart waaw discours yooyu yàgg naa ko dégg ci YouTube bi man du moom moo ma jëlee ci tarixa man depuis 1993 la banque sama loxo ci affaireu u tarixa 93 maa ko banqué Milan parce que 89 la dem Italie bobu amul visa 93 dafa ben serigne ñëw bi serigne bi ñëwee fofu ci la gis lo xamni té bobu fekk na ma am ci ay jaar-jaar yu ma jaar mais ci la banque sama loxo kon kàddu maaxadi yi génnewuma man ci tarixa ma génne ci tarixa waaye dafa fekk mu tombe ak euh, ma nekk ci recherche di am lu may lu may wër lu may seet bi ma déggee mu wax nag wax ci turu watawaasaw bil xaq ci laa ni de groupe bi bëgg naa cee bokk pour yokk sama xam-xam parce nit waxuma sax seconde bu nekk waaye minute bu nekk bu la rëcc te yokkuloo ci xam-xam rek perte nga ko. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu ya axi waa su ma bëggoon indiwaat beneen question rek dinaa la laaj toujours si kàddu ma xaddi bi parce que dernière fois bi def na benn live bu muy wax ne parents Sénégal am nañ responsabilité bu rëy si nu ñuy yaree seen doom nu ñu leen di seetaanee ñàkk leen jàngal diin ba. ñàkk jàngale boobu day tax gune gi du xam dara ci diinam te day yomb tàbbi ci bokkaale yomb daanaka daal lu waajuri amuñu seen biir jànguñu mënuñ ko jottali yow loolu noonu wax yooyu noo ko dundee ak noo ko munee xoolee sa bopp yow Bachir loolu li ma la ciy tontu mooy gis nga senegal lii fi am nii yàgg na fi ci affaire tarixa li la koy wan mooy dangay ngay judd nekk xale li ngay njëkk a ràññee ci sa biir famille mooy kii murit la kii tiijaan la kii lii la déjà kon yow ci loolu ngay màgg loolu ci loolu ngay màgg léegi boo ci màggee nag bu la yàlla dimbalee nga dem ba nekk nit koo xam ne ku majeur nga yor sa xelum bopp sax pour nga génn ci day jafe ndax yow dangay jàpp ni loolu mooy diine danañ la duggal alxuraan nak ku melni ni man jang na alxuraan mais jang mi it bokkul ak ku ñu yóbbu dara waaw parce que fi ñu juddoo gumba lañ doon jang duñ lu commencer ci ay araf comme alphabet bi nga jang ko ba paré mëna lire mëna bind mëna xam tamit li ngay jang lan lay tekki kon dal wajur ñoom amna ci lo ñoom tamit boy xol boo ko seetloo ba seetlu ko ñoom tamit ci loolu lañ juddu dañoo juddu fekk seeni waajur maanaam ñun suñuy maam nekkoon ci loolu waaw léegi nag bu la yàlla xërtalee yow ci diine parce que diine tam yàlla moo ciy xërtal nit ba pare waaw xërtal la ci tawxiid léegi yow après yow yaay def sa ay recherche su bopp yow yaay def en tant que màkkum jëmm yow yaay def sa ay recherche su bopp boo defee say recherche ah yow diine bi nga xam ne ci nga juddu sax muy lislaam am na ñu ci juddoo def seen recherche xool doyu leen xëy nañu ñu ko dem ci beneen diine am na ñu def seen recherche nekkoon ci ay tarixa dem ba gis ni lii maanaam te dëgg-dëgg am na lu ko gën a wóor am na lu ko gën a wóor ñu banque seeni loxo jublu ci gëstu loolu waaw loolu laa lay tontu ci sa deuxième question. wa rahmatulah wa barakaatu yaa axi jërëjëf si kii tontu yi jërëjëf. Euh, naa la bëgg a laaj tamit euh, parce que da nga ma ne da ngaa banque say loxo depuis quatre vingt si tarixa yi donc danga seen nekkoon lu ma bëggoon xam mooy est-ce que benn tarixa rek nga mës a nekk wala da ngaa nekk nekk si ay tarixa yu yu bokkut jóge ko ci bii dem si bële jóge ko ci bële dem si bii te tamit ba ngay nekk ci biir tarixa yi est-ce que yow sa doxin ak yeneen ni benn la woon cest à da nga doon jébbalu bon da doon gëm ba jeex da doon def lu nit ñi doon def. wala da nga amoon réserve bu ngay nekk ci biir tarixa yi loolu laa bëgg tamit nga leeral incha allah bon bi ma bankee sama loxo dama mujj ne man ci Cheikh Ibrahima Fall laa jokk direct foofu laa mujj viré teewul dama daan julli di woor di def lépp loo xam ne jullit ba ko war a def waaw mais teewul moom laa defoon euh, wasila la ci kaw ngëm gi ma gis ñu wax ko fekkewuma ko de ne gëmoon na ko sëriñ bi beneen affaire euh, bi ma ci jógee jaar naa ci yàlla yàlla yi yàlla yàlla yi tamit ni ma ci jaaree mooy dama toog sama benn kër xarit am benn xale bu jigéen bu ñëw ni dafa am waajuy wane yàlla ma ne ko ndax wan na la ko mu ne ma wan na ma ko ma ne ko ah léegi wan ma ko ndax man ci recherche loolu laa nekk man xam yàlla egg eh, ci gitu yàlla lu ma ñor la mu ne ma loolu man munuma ko mais mën naa laa yóbbu ci moom boole la ak moom ah ma ne ko ah bisimilah xam nga yàlla moom booy def boo nekkee ci recherche mu jaral la il faut que nga perdre sa temps def ay jéego def ci sax sa xaalis ma ànd ak moom mu yóbbu ma ci benn waa joo xam ne waa ji parcelle la nekk parcelle assani xam naa du ñàkk sax boo ko waxee ci groupe bi gars yi xam nañ ko parce que léegi ci waa kër Baye Niass la mujj mbay njaay lañ koy wax mi ngi woote naan mooy xubu samaanu jamono mais ba tey man amoon naa réserve boo xamee nag réserve bu yéeme amoon naa mooy maanaam man bu ma joxe sama lépp déjà musuma nangu toog ak nit naan ko jébbal naa sama bopp àdduna ak àllaaxira sama xel sama xol musu ko nangu sama xel musu ko nangu parce que man loolu pour man yàlla la yàlla mi nga xam ne fa la nit jóge fa nga jóge te di fa dellu di nga ko jëbël sa bopp par A ou B pour man boo jëbël sa bopp doomu aadama bu jëbël boppam yàlla la ko war a jëbal mais pas doomu adam parce que doomu aadama bi ngay jëbël sa bopp moom xamatu bima boppam dara léegi bi ma jógee ci ya, bi ma yóbboo ci sëriñu yàlla yàlla boobu bi ma demee sëriñ bi xamal ma ni moom li yor sëriñ bi sëriñ bi moo leen ko jox dañuy eggale nit ah ma ne ko waa ah, bisimilah man de bëgg naa yegg ci yàlla man loolu rek ma yëkkati mu ne ma bisimilah na ma nag mom da ngay jébbal sa bop yalla fofu fofu mom dégg na fa loolu da ngay jébbal sa bop yalla waye foog mu intermédiaire bi moy man ci man lay jaar pour mëna dem ci yalla mané ko loolu batay xel nangu na ko ko ba pare mu yëkëti istighfar astaghfirullah jox mako ko mberd ndap bala nga ci def dara dang koy raxas ba paré ah mané ko bismillah ma jël istighfar bi diko liggéey pour guddal bi liggéey ko lu tollook un mois boobu maa ngi fekk nag moo ami taalibe am ñu ko gëm am yooyu te man loolu déjà man li may yëg du loolu man li may yëg du loolu bi ma góorgóorloo ci istifaar yi ñëw fa ñaari yoon mun mënuma demal gën a góorgóorlu ñetteelu yoon bi mënuma baax na yëkkati laa ilaha laa jox ma ne ma da nga ciy def douze mille heures boo jullee ba pare xam nga ne loolu dafa xaw a bari ah ñu tam kom yàlla def ñoo intéressé ñu nekk ci di góorgóorlu biñ ci góor góorloo ba pare ba sori ci mu ne léegi daf ma bëgg a gindi ci yàlla dugg man ci benn néeg te kaamilu alxuraan bi wax ma daal ay yàlla moom ca dëgg-dëgg li ngay ut yàlla mi ngay wër mu yow la gën a jege maanaam wax ma ko wax yoo xam ne daal te dëgg-dëgg man aw ma ci yëg-yëg bu kawe daal waaw aw ma ci yëg-yëg bu kawe mu bëgg maa maintenir ma départ. man kenn ma maintenir maintenir mom kenn musu mako def te kenn mënu ko teg ma tak ma saret loolu moom li may yëg moom da ko nanguwul sax far limay yek nangul lolou ci la len abal legui nak ni Cheikh Ibra comme 1930 fi judd te gemon na na jema am ak mom contact bo xamne contact spirituel lay doon ba ba pare di continuer sama recherche waaw di continuer sama recherche man dal bima ma ba gëstu dëgg-dëgg lan mooy arxuraan te arxuraan maa ngi ko gëstu ci ñu jàng arxuraan ak arxuraan boo xam ne njàngum guma nga ko jàng xam nga kooku moom dafay na mënoo koo gëstu sa bopp ko gëstu ci jàngkat yi bi ma gëstoo ba xam ne dëgg bi réalité bi mooy arxuraan sunna Seydina Muhammad hmm? ak Muhammad bi nga xam ne moom bu fekkee sëriñ day am moom moo war a nekk sëriñu jullit yalla nek mom ken ko place am bokku ko ken te wax ko ci khul wallahu ahad sunna di na yonent bi daan dunde te julit bu nek war ci roy waaw loolu la lay alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa kilifa gi ñu ngi kontaan ci say réponse té di la ñaanal yalla na la yalla dëgëral sam sam ñu sama question bi mooy dama gis ne tarixa boo gis rek am na système adiya wala système cotisation en tout cas daal joxe moo ngi ci biir yoon bi te joxe suñ ko déggee sa sëriñ koy jox euh, yow nag par rapport à loolu noonu noo ko dundee est-ce que joxe bi dala doon sonnal wala dala doon neex wala boog euh, sa sëriñ bu nga doon jox moom da utoon sëriñ buy dund wala nodon def relation boobu la bëgg dal nga éclaircir ñu yow ak joxe ci biir tarixa bi noo ko dund <clears throat> man loolu musuma cee bokk maa ngi fàttaliku euh 91 onze am na benn sëriñ bu ñëwoon Italie jëlee fa xaalis bu bari boobu defe naa problème mu këyit moo amoon xaw ma gars yi di ko diis ay affaire këyit mu ñëwoon Italie fekk ma nekk sama ñoo xam ne ñaar ñoo xam ne ñoom nee nañ ay taalibe lañu mu sasoon taalibe yi nekk Italie yëpp kenn ku ci nekk cent mille lire jamono yooyu cent lire moo amoon Italie jamono yooyu cent mille lire équivalent su trente mille CFA la woon ñoom boobu ñu ngi nekkoon benn dëkk bu ñuy wax Salerno ñu ne ma léegi ñoom dañoo bëgg a dem comme sëriñ bi mu ngi Napoli yóbbul ko seen sa seen sas bi leen sëriñ bi sas. man leen mën ngeen a dem man sas bi dinaa ko génnee waaye comme dafa am benn waay bu nekkoon foofu boo xam ne dafa accidenté woon cinq ans mu tëdd fi mu tëdd man sama sas moom laa koy jox ñu ne yow lay wax ni man leen waaw waaw moom laa koy jox de du ko jox mbindeef kii tëdd nii te tubaab yi te gars yi bu ñu xëyee bàyyi ko fi ñëpp liggéey di ko dénk seeni xaalis te mëntu jóg fi mu tëdd tubaab yi fay ñëw di ko sang di ko defar di ko toppatoo man sama cent mille yi ñu liir yi ñu sasee man moom laa koy jox yéen nag mën ngeen a dem yëkkati seen cent mille jox ko sëriñ bi maanaam ci wàllu joxe moom Basir dinaa la benn affaire Basir gis nga ngëm tawxiit boo xam ne dafa nekk ci nit bu dëggu Basir pour nga jaar ci yenn jaar jaar yu ci bari coono yi sax Basir day parce que da nga koy yëg da ngay sentir li ngay def yow musuma am benn coono ci yooyu musta am musuma am musuma bokk daayira musuma am ku may sas di ma taxaw benn yoon lañ ma mës a sas te bañ ma sasee laa ci raxasu musuma am benn coono ci xeet yooyu musuma ci kenn musuma wax naa la ko ci suma deuxième message nee naa la kenn musuma takk musuma nangu musuma nangu loolu parce que li may yëg dafa foor fooraay boo xam ni maanaam te ki ngay toogal mu lay teg loo xam ni ca dëgg-dëgg lu lay sonal la wala lu gis boo jàppee ne doomu aadama la comme yow doomu aadama day gëm boppam tamit léeg loolu dina dimbali nit day gëm boppam ba pare boo jàngul sax nga utiliser sa xel ba pare nga am tawxiit ngëm surtout tawxiit man daal ci gàttal ci sa question bii li ma la ci mën a tontu bu gàtt gàtt màgg naa ak benn xeetu tawxiit boo xam ne dimbali na ma sama àdduna bu coono yooyu yëpp jaaruma ci musuma bàyyil nit musuma tarbiya nit di di def bàyyi coono kenn musuma sas musuma bokk daayir man daal rey sa bopp yu metti ba pare bon man sama jeunesse yëpp sax booy xool bi may nekk tout tànk moment bi ma war a def loolu mi ngi ma fekk ci àll bi waaw mi ngi ma fekk ci àll bi kon àll bi exemple nekkoon nañ ci benn réew boo xam ne réew mu mel ne Bologne Bologna ñu nekk Italie ñu nekk Italie bu ñu ma déggee nañ xam foofu foofu exemple sëriñ si nga xam ne ba na daan wër tuur Italie di fa jël ay addiyaag yu mel noonu Bologne daawuñu fa ñëw wala buñ ku fa ñëw doo fa dellu si parce que boobu ñun nekk nañ benn groupe tuddee suñu group daara ji mais maanaam loolu dañ koo mus a weddi musuñu ko gëm bu ñuy dem ci yeneen dëkk yi sax dañu xas i waa boloñ dañoo boo demee kii te ma amoon fa ay gaa yoo xam ne ñoom dañoo sës bu ñu gisee nit ku ñëw rek di dox ci yooyu rek ñu dem ci alimentation bi jënd seen i bagage ñëw teg fang nga xam ne boo ñëwee da ngay xam ne ñii moom da nga leen di kii da ngay xam ne ñii mooy loolu waaw loolu moom basir te dëgg-dëgg musuma ci am benn coono nag asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw kilifa gi man de naa ma deux questions daanaka si benn question lay tënku parce que wax nga léegi benn wax bu doy waar nga ne sëriñ bi dafa sasoon waaye nag amoon ngeen benn mbokk bu feebaroon bu tëddoon lu yàgg waa ma ne kooku noonu si daay si si si tarixa bi la bokkoon daanaka si lu ma foog wala si si bokkutoon nga wax mais comme si si su nekkee si la bokkoon waa naka la système solidarité bi doon dox si biir tarixa bi ah, sa dëkk fu nga nekkoon est-ce que tarixa bi seen solidarité pour jëmale rek ci sëriñ bi la wala ñoom seen biir dañuy jàppalante parce que jël sa àddiya tamit bu ko jox sëriñ bi alors am nga sa mbokku jullit bu nekk si yenn bokk tarixa mu ngi feebar ba tëdd mënatul bouger foog naa ne kooku noonu euh, su dul dara sa sëriñ bi waroon na ko yëg ba ñëw seet ko. deuxième question bi mooy en même temps par rapport à ce sëriñ sëriñ yi nga yi nga amoon est-ce que xamoon nañ sa tur est-ce que xamoon nañ la est-ce que mënoon nga leen di doon doon seet si est-ce que am nga sëriñ bu la mës a seet si ñëw sa kër seet si la añ ak yow waxtaan ak yow euh, su amee tamit euh, est-ce que loolu c'était fréquent. ah Bachir basir Bachir yow euh, man sëriñ bi nga xam ne ci laa ci moom laa mujj jaar. kooku dafa am wóllëre gu mu am ak sama yaay muy wóllëre gu yàgg euh, xamoon na ma xam sama tur bu baax mës na maa woo it waaye man bi ma jógee Italie sama jóge bu njëkk dama amoon soxna tubaab ànd naak moom ci kër sëriñ bi bi ma demee ma yëkkati ñaar fukki junni muy cent mille jox ko ko addiya de un bi ma ko ko joxee da koo xeeb ndax ci ñëwum bi mu ñëw Milan ci ñëwum boobu ci la yàlla dogal soxna si nga xam ne moom moom moom laa jël foofa la ñu xamante fa la ma fekk ma laxasaayu sol njaxas na ci liggéey bi foofu daal laa xam ni mës naa faa def loo xam ne ci dëgg-dëgg waaw luy wane ni te loolu maa ko def sama coobere bopp su boobu ñu ngi dëkk Milan man ak sama benn waaye boo xam ne ay taalibeem la ñu woon Euh, ñun ñu dëkk Bologne mu ñëw Milan ñu gàddaay ñëw Bol ñëw Milan biñ ñëwee ñoo jël suñu responsabilité nekk ci waañ wi man ak suma waa ji ak benn euh, femme jamaïcaine ak benn tubaab français ñun kaat ñoo nekkoon ci waañ wi daan jël suñuy xéewal di ko jënd ay ndox ak di toppatoo xéewali sëriñ beeg yooyu te loolu diggante bi 15 jours la mat loolu daal laa fàttaliku loo xam ne man xëy na te coono bu ma teg sama bopp la kenn teguma ko man maa ko tegoon sama bopp ne serait-ce que pour a xam te ma ko defee ba pare laata ma faa jóge foofu laa weddee waaw foofu laa banqué samay loxo waaw sa beneen question bi nag euh, maanaam mooy contact non man contact yooyu musuma ko am Bachir man musuma nangoo contact. musuma nangu ko musuma kër daal kër bu non non parce que li nekkoon ci man dafa foor foor boo xam ne permettre mu woon en tant que doomu aadama nga xam ne ak yàlla ni mu ko formé muy suufeel sama bopp yenn suufee yi sunu waa jooju ngay wax nag man bi ma ko koy jox liggantiwu man ci tarixa nangam la bokk wala tarixa nangam gis naa ne daal ku feebar la koo xam ne fi mu tëdd mënu fa jóg tubaab yi ñoo fay ñëw di ko sang di ko toppatoo ma ne man lamay may joxi kële te ñep di ko jox ci sama xelu bop lay wax de hein ki moko gëna yaayo mo yëkëti ko jox xoko ndax fama nekkon ci salaan foofu dekkuma fo won dañ fa jaaroon rek été waaw euh, ñu fa ëppoon ñu fa nekk sax nekk ñu won ci tarixa yi ñu nekkon ay tijaan lañu won ak yenen ki yenen tarixa lañu bok kon man bi koy def teguma ko ci tarixa teguma ko ci daaira ndax fofu escale lañ fa def rek dëkkuñu fo won mais kër la go xamne commune bi mom moko ko joxoon te am dem la ba tok ben moment sax ñu ñuy xatal ci kër gi pour wal na ni fofu kon social bi nga wax moom daanaka nit ñe koy wax rek may amu fa duñu bëgg a man mi ma sës na leen yeen kër gi momu leen ko bëgg ñu génne dem leen police fu leen neex dem leen ñun am nañ ay kayit ay sénégalais lañu am nañu cër ci kër gi tok fi ba suñu waxtu jeex ñu demal ñu dem suñu ñu demal suñu bop waaw lool daal biñ koy def daanaka mom dañ ko def te yalla tax rek te gis ni ki yitté wonako ko kañuy joxi mom koku bu ko ñëpp joxee dana bari le te ki teud ma gis ni gars yi sàgganee nañ ko sàgganee boo xam ne lenn daal la fa lañ ko doon loo leen doon defal ñu ci bari moo leen daan teel seen xaalis daf ko ci pot teg na la ku ñëw mën a la sa poto nge ne la jóg munu ko bu jóg dañ ko yëkkati munul dara waaw yëg-yëg daal laa ko defee woon mais defewuma ko woon ci daayira wala ci murit la wala yooyu parce que lu baax it boo fekkee da nga ko bëgg a def yooyu yëpp doo ko xool comme jullit la may jullit rek mu nekk ci nattu boobu ñu jàpp ni war nañoo mën a jël sunu xéewal jàppale ko salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu yaa axi dafa mel ni si say wax nga ne sa sëriñ bu mujjee bu ngay tàqale ak moom xamante ngoon na ngeen sa wóllëre yaay la woon donc euh, kooku au moins mun na mel ni exception la woon si yow daanaka si kër gi la bokkoon wala nga bokk ci këram ku mel noonu waxoon nga ne tamit dem nga këram euh, dama doon laajte rek euh, lu gàtt gàtt ñaata ñaata jullit la jiite la jiite wala ñaata yoon nga julleek moom. te bunga nga paré tamit ñaata araf alquran la la jangal wala nyaat yon nga ko musa deg mu ne yonent bi neena yalla neena koku suñu jokkoo dafa yagul yag bobu mais li ngay wax du du du ku koy wax mom yoyu ah man de ki ma dajalon man musuma ko wax mais fréquentation bi bari wul won ah fréquentation bi wul ben yon bobu la ma sa dem hmm ak ben yon buñu ñu milan te li tax ma dem këram mooy comme gise bi ñu gise Milan ci la ma yàlla booleeg soxna soosu ah ma ni kii bu ma ñëwee Sénégal dinaa dem benn yoon siyaare ko te ba ma fa jot demee euh, ba tey nii affaire boobu daf ma marqué tubaab bi ma àndal te muy jigéen nekk italienne ba ma ko joxee xaalis bi daf ma ne sama xaalis bu ko joxati façon yi moom tubaab bi mooy wax de ne ma lu tax ma ne ko lu tax mu ne ma kii moom moo ñu gën a nekk ci jàmm kii salon bi ñu ko fekk mu toog salon la boo xam ne ñun ñu ngi fii Sénégal mais amuñu ko tubaab bi daal maanaam mbiru àdduna la fa gën a seetlu ba bi ñu génnee man ak moom suñu affaire xaw na tàng xaw naa tàng tuuti mu ne ma sama cent franc hmm, bul ko yëkkateeti di ko jox façon nit yii waaw mais boobu man comme fekk na maanaam li nekkoon ci man deñ dama ko def rek pour wóllëre mais def ma ko woon sax pour gëm ko non non ma ko woon pour lool tey boobu laa fa gëj boobu laa fa gëj boobu la gëj a lekk samay xéwal woowaat na mu fi téléphone am benn soxna boo xam ne daf fa dem ne dafa bëgg mu may ma ko mu ne ko sama taalibe la dinaa ko woo mu ñëw fi looloo taxoon mu woo ma ba ma wooyee ma ñëw six heures la ma jox rendez-vous ma def ko exprès ñëw huit bi ma ñëwee ñu ne ma sëñ bi fatu na ma taal waaw bëggoon naa tamit euh, si si toujours sëriñ bi rek parce que da nga ne am na jigéen bu la bëggoon jigéen bi bu mu la bëggee dafa ñëw laaj la laaj sëriñ bi sëriñ bi ne ko yow taalibeem nga waa mais kon est-ce que seen sëriñ yi walla yow da ngaa gis sëriñ yoo xam ne dañuy may jigéen seen taalibe te duñ jaar ci pàpp ndaw si est-ce que mos nga ko gis ay jigéen yoo xam dañuy ñëw sëriñ bi moo leen di maye ñu sëy est-ce que loolu gis nga ko te tamit beneen bi tamit parce que sëriñ yi euh, dañ leen di ñaanal mais est-ce que mës nga am sa benn sëriñ boo xam ne jox na la butéel wala saafara ne la diwoo lii wala taqal li wala gis nga benn taalibe keneen koo xam ne sëriñam joxoon na ko butéel mu sangoo ko saafara wala mu diwoo ko wala mu takk dara benn gàllaaj ne sëriñ bi moo ko ko jox waa loolu tamit bëggoon naa nga expliquer ma ko nga wax nga leeral ñu si tamit toujours rek si sëriñ bëggoon naa nga expliquer ma benn affaire parce que da nga maa ne doo ko doon dégg loolu du ay waxam yàlla nee na yonent bi nee na loolu daal du ay mbiram mais kooku est-ce que bëri na taalibe su bëree taalibe tamit kooku peut-être doo ko doon gis lu bëri mais yaa ngi di gis ay vidéo si YouTube est-ce que biir YouTube wala feneen wala feneen réseaux sociaux da ngay gis léegi ba léegi ne ay vidéo mu ngi yàlla nee na wala yonent bi nee na wala ba léegi rek da ngaa gis ne soppewu doxali waaw man de ca dëgg-dëgg moom yàlla dimbali na ma bi may gën a nekk tuut tànk rek mooy li ma lay wax affaire u gàllaaj ak ay saafara maanaam man musuma koo gëm man musuma koo gëm sama waajur bu jigéen daan na ma jox ay gàllaaj mbaa ay saafara yu mu jële ci sëriñ mais bu ma ko joxee pour warmaal ko dama koy teg na maanaam musuma gëm affaire galajak ak safar musuma ci dox affaire serigne si nga xamé tamit ñoo ci yëngatu côté rier gu metti gogu dal man suñu borom dimbali na ma ci parce que du sama pexé wala sama katan su doomu adam amul pexé amul katan te Sénégal nek na rew mo xamné rier fi wala yaakar leneen dul yalla yomb na fi yombaay bo xam kenn mënu la ko wax mais man suñu borom dimbali na ma ci katanam ba man yoy bi may gëna nek tout tank sax gawmako won musuma ko gëm musuma ko gëm boolewuma ko woon ci sama affaire sama waajuru góor nag daan na ma sonal ci loolu sama waajuru jigéen waaye lu ma ci mësa a jox rek damay jël teg na la parce que jàpp naa ne li ci man moo gën a foor li may indil ndax boo xalaatee doomu aadama bi muy nekk ci biiru waajurumu jigéen nekk fa ak yàlla te dara fekk ko fa yàlla di ko sàmm te foofu xat na tàng ba mu génn muy dem sàkku ji leneen loo xam ne bàyyi kowul ci yàlla di jóge ci doomu aadama man lolu suñu borom muccul na ma ci musuma ci musuma ko musuma ko gëm dal wa ba pare tamit di may nit euh, jabarte wajurum yi duñ ko wala jëkër lolu moom gis nañ ko sénégal boko xolé ci cantaakoo ni ah, am na ci ñoo xam ni seen seex bi su la mësaan di soxna juroom ñaari seigne saaliw la koy maye te du tàggu du neex sax def nako fi ay yoon yoon mais man budé ci ki ma nekkon man sama mom bari wul manam ci deug deug yoy mom suñu borom dimbali na ma ci quoi waaw yooyu moom xam naa ni ngëm gi nekkoon ci man euh, ci la ma ci suñu borom dimbalee ba mosuma ci xër. ñoo may laaj ñi dafa gën a pur. salaamaaleykum yàlla nee na yonent bi nee na du ko wax moom kay ci waxam li ci gën a jub sax xëy na léeg-léeg mooy jël maamam teg ko palaasu yàlla waaw loolu moo gën a xaw a jub sax ci ay waxam que yàlla nee na ñoom bu ñu la wax loolu tarixa sénégalais yi li ci ëpp seen ay maam lañ lay tegal ak jaar jaar beeg yooyu. waaw duñ la wax yàlla nee na yonent bi nee na wala alxuraan wala kii parce que yooyu koo ko wax bu fekkee doful yor xelam te yàlla di wax ci alxuraan ni borom xel yi lay waxal waxuma sax am njàng boo utiliser sa xel rek après da ngay daw génn da ngay daw génn Bachir waaw mi ngi gën a am mbooloo di gën a jay jayxu di wax lu ko neex ci YouTube bi heure boo duggee YouTube fekk ko fi muy expliquer waaw. mais explication moom moom yàlla nee na yonent bi nee na moom ca dëgg-dëgg man musuma koo dëgg ci explication même bi ma ci jógee yàgg na maa ngi koy gis ci bi léeg ma déglu ko waaye ay waxam sax man fu mu waxee ba pare man. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. yaa axi ah waaw mais ba léegi nag xam nga foofu moom koo xam ne duñ koy dégg mu ne yàlla nee na yonent bi nee na te nga ne mbooloo gi day yokk loolu dina ma pousse ma poser la benn question maanaam. mbooloo bi di yokk xanaa ci ay ñam lay dugal ay njabar pour nit ñi di ko topp te tamit su nekkee ñam yi ñu ngi koy jox nit ñi mais est-ce que mos nga ko gis foo xam ne day yëkkati xaalis di ko may ay nit ñam yi moom xam naa ne war na di rey ñuy lekk mais est-ce dina jël xaalisam di ko jox nit ñi nag. loolu tamit bëggoon naa soo si amee ay mandat wala ay finde wala ngi sëriñ buy jël xaal di ko jox ay taalibeem nga waxal ñu ko fii nga seede ko ndaxte ay ku teg cinquante ak dara war nga gis lu bëri quoi Sénégal su nekk tamit bitim réew nga ko gisoon nga wax ñu ko tamit rek nañu arrangé incha allah. loolu man mësuma ko gis musuma koo gis musuma koo fekkee xam nga booy seede da ngay seet seede rek te yàlla tax ku ci jël xaalisam di ko jox nit. man musuma koo gis sa dëgg-dëgg waaw man musuma koo gis te man tamit bi ma ci ni ma lay wax rek laa lay répété waat bi ma ci raxasoo sama loxo 93 ci laa ci pare ligganti sama bopp li yàlla santaane ñu ne ci di def suñu ay recherche recherche yooyu ci laa moom laa topp bu dugg ci seen groupe yi man musuma gis loolu man musuma ko gis ku ciy jël xaalis di xanaa kay taalibe yi ñoom ñooy dem dajale li ñu yor indi ko jox sëriñ bi mais sëriñ buy dox ay taalibe ah musuma ko fekkee musuma ko gis musuma ko dégg tamit. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. tamit. nga wax ma est-ce que li ngay nekk si bitim réew wala li ngay tukki wala li nga Sénégal yëpp mos nga gis tamit benn euh, sëriñ bu julli taalibeem taalibeem gaañu ñu yëgal ko ko mu ñëw teg saape julli ko. est-ce que loolu moo ko gis fu ko jullee parce que tamit euh, ñu si bëri dañuy euh, ak la jox boppam àdduna ak lu néew néew néew du mais est-ce que loolu ko fekkee waaw loolu tamit bëggoon naa nga xamal nga wax ma euh, expérience. man sama man. Euh, dafa génn àdduna ci juróomi at ci ginnaaw maako yóbbu Touba laata ñuy tëj armeel yu njëkk ya foofu lañ ko denc bi ñu ñëwee ñu defar ko ba pare man bi ñu koy defar maay taxaw bi ñu ko defaree ba pare war koo denc sëriñam bi nga xam ne moom fa la jébbul woon ah dafa ni dafa yónnee ndaw xaw nañoo xaar tuuti sax te man xaar boobu man rafetluwuma ko woon ndax nit buñ ko defaree ba pare rek dañ ko war a denc waaye xaw na nañoo xaaru tollook genn wàllu waxtu xaw ma waxtu pour xaar ki sëriñ bi yónni pour mu ñëw ñu jullee ko pour mën ko denc man loolu it mosuma ko gis te dëgg-dëgg mosuma ko gis mosuma ko fekkee. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. Euh, bëggoon naa tamit que ak li nga dund sa expérience parce que cinquante ans ak lu si tegu du lu ndaw donc euh, si li nga dund. te tamit gis relation bu am entre sëriñ ak taalibeem est-ce que mos nga gis benn sëriñ boo xam ne jël na doomam bu jigéen may ko taalibeem est-ce loolu daal da nga ko gis soo ko gisee tamit ngir yàlla nga wax ñu tur bi ban sëriñ ku am tarixa samp ko nit ñi di ko topp mu jël doomam bu jigéen jox ko taalibeem su nekkee am na parce que sëriñ bi mooy yar taalibe yi te xanaa kay taalibeem yëpp dina si am ko si baax baax boo xam ne ci ay jikko ci ay ay gëm yàlla si ay pas-pas ba kooku dina mun denc doomam bu jigéen te sëriñ yi tamit xanaa kay am nañ ay doom yu jigéen wala am nañ koo xam ne seen famille jege na leen ba yéene nañ ko seen taalibe wala su amul tamit ah c'est un point d'interrogation. rahmatullah Bachir Bachir man loolu mosuma ko gis déjà xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xam ne affaire u askan. Euh, dafa nekk tuuti problème waaw ci ci problème bi tamit am na lu ma gis loo xam ne xëy na mën naa tax duñ ko war maal mooy boo bokkee ci askan boo xam ni comme askanu ngéwél man dama juddu ñu ne ma ci askan bi nga bokk askanu ngéwél la am na ci ñoo xam ne duñu nangu may seen doom ku bokk ci askan woowu waaye askan woowu tamit ñoom nanguwuñu di may seen doom koo xam ne bokkuñu askan man loolu man te dëgg-dëgg Basiir man mosuma koo gis sëriñ bu jël doomam may ko taalibe man mosuma koo gis te dëgg-dëgg man mosuma koo gis waaw mosuma koo gis parce que affaire askan tamit ñun xëy na bon yàlla dimbali nañu ba suñu génération ak suñu expérience xaw nañu ko démystifier man ci gàttal exemple mës naa am soxna soo xam ni. Euh, soxna si moom maanaam ci askanu tëgg la bokk waaw bi ma demee bëggu koo jël dem seeti sama papa waxtaan ceeg moom moom dafa ma xamal ni ñun du ñu takk xeet yooyu ma ne ko man dama ko tontu de en tant que waajur man loolu góoma ko ndaw si jullit la jullit laa mu ne ma kooku man mënuma la koo may mais dinaa la booleek sama benn rakk moom mu dem ñaanal la ko mais man bu dee man en personne man mënuma ko waaw ay gëm-gëm yoo xam ni yu fi yàgg la yoo xam ni ba tey ñu ngi koy utiliser am na ci famille yu koy ba tey waaye man dama jàpp ni ku nekk jullit nga nekk jullit rek euh, war ngeen a bu fekkee mëggeel am na seen diggante ak cofeel war ngeen a mën a sëy waaye bu dee sa laaj bi nga ma laaj moom musuma koo gis de ca dëgg-dëgg salaamaaleykum wa waa kilifa gi bëggoon naa ñëwaat ba léegi parce que am na benn point boo xam ne bu daw yaram parce danga maa ne yow ba nga nekk si tarixa yi da nga doon julli di woor nag waa da danga ko wax waxaat ko mu mel ni julli ak woor nag bi nga doon def dafa meloon ni lu garaaw quoi te man damaa gis ne góor ci diine bi da nga war julli say juróomi julli juma. daanaka jàkk danga war a dugg jàkk julli fa say juróomi julli donc euh, julli ak woor pour man du loo xam ne affaire bu garaaw la parce que minimum bi la lii da nga ko war ku ko deful am nga ci bàkkaar damaa gis loolu gis kon boog li nga doon wax ni da nga doon julli di woor si bi nga nekk si tarixa bi daanaka maa ngi si déggee ni ñu bëri julleeg woor euh, affaire de affaire de fla-fla la daal du loo xam ne am na solo te su amul solo ci taalibe bi est-ce que nag da doon gis euh, sëriñ boo xam ne day farataal juróomi julleem yëpp biir jàkk est-ce que mës nga gis benn sëriñ bu tarixa benn benn laa wax boo xam ne juróomi julleem yëpp seedee nga benn bés wala gis nga ay nit yu seedee benn bés ne am na benn sëriñ boo xam ne juróomi julleem yépp ci benn bés def na ko jàkk est-ce que am nga yow say cinquante ans mos nga ko teg bët wala mos nga teg bët ku ko teg bët wala mos nga teg bët ku dégg ku ko teg bët. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu waaw kilifa gi sama beneen question bi lii lay nekk tamit euh, parce que tamit euh, dañoo ne sa sëriñ mooy ku lay jëmale ci yàlla donc ku lay jëmale ci yàlla dina la wax moytul safara kon yow sama question mooy di est-ce que mos nga gis sa sëriñ. li ngay nekk ak moom yëpp ba ngay tàggatoo ak sëriñ yëpp ñu nga nekkoon seen biir yoon am yaakaar ci ñoom est-ce que mos nga len deg fenn fuñ mosa a wax taalibe yi moytu leen safara moytu len safar est-ce que mos nañ jangal tal sen talibé ne yéen mun ngeen tabbi safara est-ce que jàngale bob mos nañ ko duggal ci nopp sen talibé lolou de bu fekkee amna man musuma ci teg beut man musuma gis ku ci teg beut wa bo gisé nak julli gogo mo bamtu ko ñaar yoon parce que fima ma bok mom lañuy wax baye fall bés am na suma benn rakk bu doon ngénte ma dem ca ngénte la sama rakk jooju Baay Faal moom moom du julli du woor waaw ñoo ngi def ay jéego sox ci nuñ ko dimbalee di ko soññ pour mu mën a góor góorlu ci loolu waaw ci yoon boobu ñoom ñu julli ak woor boo gisee ma tudd ko ñaari yoon loolu moo tax mais man dama nekkoon ci yoon yoo pare daan julli di woor waaw li sariya digle liñ ci mën gaa matal lépp sax yombul mais liñ ci mën tey muy farata yoo xam ne jullit da ko war a def dañ ci doon góor góorlu dañ ci doon góor góorgóorlu mais bu ma ci mësaan di góorgóorlu it damay gis ni maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tarixa boobu ah dañuy mel ni ñu ma xaw a xeeb ndax keroog ci sama ngénte rakk jooju bi waxtu julli jotee ma àbb ko basan di julli fekk Baay Faal yëpp dajaloo fa Euh, gis naa ko ay comportement waaye man boobu liggantiwu leen li ma sentir rek laa def que ni yàlla moo ko digle dama ko war a def dama sentir pour def ko ma koy def am na tam benn kilifa bu ma doon déglu lu bare bare bare ba daanaka man du déglu musique yàgg na ci man dama ko daan déglu lu bare bare bare bare moom ñuy wax Serigne Sam mbay bokkoon na ci ko bokk na ci ki ma ki ma gën a dimbali ci wàllu diine waaye léeg-léeg ci ay waxamit dem nañ ba gis ni day jàdd waaw dem nañ ba seetlu ko ni léeg-léeg mu wax wax joo xam ni te dëgg-dëgg ku ko gis ci arxuraan wala nga gis ko gisu ko ci sunna doo ko fa fekk ah bi ma demee ba loolu ma découvrir ko mu leer ci sama bopp dama wàññi déglu gi te dëgg-dëgg parce que man fi ma toll nii te yàgg naa faa toll li ma ñor mooy ku may wax arxuraan di ma ko firil di ma wax li yàlla wax ku may wax suma sunna Seydina Muhammad di ma ko firil di ma wax li ci yonent bi wax li ma gën a def li ma gën a bëgg ci àdduna loolu ca la bokk waaw boo ci boolee leneen rek ah damay daal di banque samay loxo waaw loolu daal lañ lay tontu loolu nga laaj moom man <laughs> salaamaaleykum ma dellu si waat ba si sa question yi nag léeg mu xaw ma def ree tuuti rek parce que yow li nga may laaj li nga ci xam man xaw ma ko ci yow xam nga Sénégal Sénégal nga nekkoon gaanaka yaa ngi ci àll bi waaye Sénégal gi nga dëkk Sénégal li fiy dox xam nga ko xam nga ni muy doxee loolu duñ la wax lu jëm ci loolu Bachir duñ la ko wax lu jëm ci yooyu duñ la ko wax ñoom seen wax bu fekkee te dëgg-dëgg ñi ngi lay wax ñi ngi lay wax loo xam ni pour yëkkati seen askan pour yëkkati seen maam pour ay intérêt personnel loolu lañ lay tegal waaw léegi nag sànq rek maa ngi la koy wax maa ngi naan ne yàlla ci alxuraan mi ngi wax ni borom xel yi lay waxal waxuma ko jàng de jàng sori na mais nga am xel kese kese boo ci boo leen déglu déglu leen xool leen topp leen déglu seeni wax Basir da ngay xam ni foofu dangay ngay perdre sa temps ngay perdre temps rek ngay perdre temps boo xam ni. boo toogoon ci sa basan julli ñaari rakk def ci ay istifaar la nga cay jële sax moo gën di leen déglu te dëgg-dëgg duñ la wax yooyu Basir loolu kay tontu naa la ko ko wax. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu waa kilifa gi di ñëwaat rek di xam nga tamit euh, loo gis lu nekk ñu ñëpp fa fa lañ dëkk mais nag problème bi dañoo dëkk senegal mais dañuy gis loo xam ne tamit daf ñuy jaaxal ñëpp lay jaaxal mais xam nga lu muy jaaxal ñëpp ñëpp ñëpp. kenn du ko yëkkati ci kaw kenn du siy waxtaan daanaka day dem ba nekk loo xam ne dafa dafa normal par exemple nit koo xam ne dañ leen ne yow kii xam na lépp ci diin bi téere ak téere téere diin bi yëpp la mokk suñ ko lakkoon yëpp mun na ko bindaat ak loxoom te du si fàtte benn araf am na ñoo xam dañ la koy wax donc dañ lay xamal ne kii xam na xam na lépp lu nëbb ak lu nëbbut dañ ko xam loo lépp am na ñoo xam ne dañ leen ne sëriñ bi yonent bi moo leen moo moo leen feeñu ñëw jox leen lii ak lii ak lii lii ku di ku weddu lii doo dugg safara xam wax yooyu dafa am dañ koy dégg te yox yooyu ñu ne yàlla day wax ak borom xel yi mais borom xel yi tamit ñu bëri dañuy weddi dañuy ne bul weddi dañuy ne Sénégal soo xamul diin soo jàngul soo mokkul euh, diin bi yëpp waroo weddi donc euh, man sama question mooy est-ce que koo xam ne mënta weddi kooku est-ce que mën na saxal loolu waa groupe Watawasaw Bil Haq question boo xam ne ça va une question ouverte parce que il faut ñu waxante suñu biir ñun suñu biir su nekkee waa tarixa wala kenn daf ñoo ne bul weddi. kooku noonu est-ce que ñun am na amuñu droit wax ko tamit bul saxal ndaxte ku mun tawee di si diin munoo saxal tamit ci diin benn ñaar euh, yow laa koy laaj bi pa mooy est-ce que li ngay déglu ay waxtaan ay kilifa li ñuy wooyee ñoom seen kilifa diine ci tarixa yi mos nga see dégg benn waxtaan ci benn sëriñ foofu noonu muy waxtaanee saxaaba yi seen jago waxtaanee saxaaba yi ci alxuraan ak sunna waxtaanee saxaaba yi si seen lu ñu gën ci ñeneen ku dut ñoom est-ce que si ñoom ñu ngi koy waxtaanee parce que koo gis tamit mun na la moom euh, sëriñ la sëriñam da koy yóbbu ci yàlla kon ku la yóbbu ci yàlla maanaam mun te weddu lu yonent bi saxal lu alxuraan saxal donc est-ce que mos nga dégg koo xam ne wala si YouTube soo amee benn vidéo mun nga ko ñu ko tegal ñu gisaale ko boo xam ne benn kilifa diine Sénégal taxaw na di waxtaan ci saxaaba yi ak seen gënal ak koo xam ne ci xeet bi moo leen gën ku dut bi saxaaba yee leen gën est-ce que mos nga gis ci YouTube ñu koy waxtaanee ñu koy tasaare ñu koy waxtaanee di ci am di sentir fierté seen bopp loolu seen question loolu moom boo duggee YouTube di ko xool ci ak axlu sunna nga koy gis waaw ñoom ngay gis ñu wax la yàlla wax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegal la alquran tegal la sunna egg ba ci saaba yi waaw foofu daal laa xam ne man bu ma duggee YouTube di di ko di ko xool foofu laa koy déggee fu dul foofu doo ko dégg te saaba yi ci wax ñi nga xam ne jàng nañu nee nañu ginnaaw Seydina Muhammad saaba yi ñoo ci topp waaw dégg bañ nañ ko sax ba ni saaba yi ñoom yàlla garanti na leen seen ajjana kooku bu jógee ci Muhammad wala mu jógee ci téere bi nga xam ne moom la ñu yàlla yónnee ñun war nañ koo mën a gëm mais am na ci ñoo xam ne gëmuñu ko am ñoo xam ne gëmuñu ko li ñu gëm mooy li xew Sénégal li nga xam ne man dama judd fekk ko fi dama judd fekk ko fi munuma ko fi jëlee munuma ko fi jëlee mais ñi nga xam ne ñoom jege nañ ma wala ma séq kook ñoom ah ku ma ci mën a dimbali ci yoon bii nga xam ne mooy yoonu dëgg bi muy alxuraan ak sunna dana la ci dimbali la ca dess ñu bayiko ci loxo yalla parce que yalla neena na na ci jamm ñoo xamne mom mo tak seen beut farma seen nop tak seen tank jeng seen xol ñoon dafa mu mu nam ci ñoom ñooñu nak ñoom kenn mu mu lay dimbali basir kenn mu mu lay dimbali lolu dal li sa question bi nga muju laaj man bu moko ko ñu firil mako mu leer ci suba sunu yi la ko déggee ci ñoom dal ngay dugg ci ci ci ki bi dégg ku ci wax di la ko tojal ngay dégg mu leer ci sa bopp nañ nañ nañ bu yàggul am na ci ay waxtaan yoo xam ne euh, ci watawaasoo bil xàq bi laa ko jëlee yónnee ko sama benn jigéen boo xam ne moom taalibe seex la mais ndaw si bi mu ko dégloo ba pare dafa ma ne wax ju leeree nii man musuma koo dégg man ci sama àdduna maa ngi koy doog dégg ni ma moom musu ko dégg ci àdduna maa koy doog a dégg ne ma ñii ñan la ak foo jëlee lii ma indiqué ko ne ko boo duggee YouTube tàppeel Watawasaw bil xaq boo ko tàppee am na ci yu bari yoo xam ne loo mës sa dégg di nga ko fa dégg. salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. kilifa gi maa ngi ñëwaat ba léegi rek mais bii paa dama am benn question boo xam ne pour um, waa group bi yëpp mais ak yow tamit mooy maanaam dama seetlu ñu bari si waa tarixa yi suñuy wax. dañuy ne waxaab bi waxaab bi waxaab bi te heure bu ñu nee waxaab bi rek suñuy daaneel duñu wax lu rafet suñ ne waxaat bi rek maanaam lu ñaaw lañ si nar a teg mais am na si tuuti si waa tarixa yi tuddee nit ñi ibaadu yi ibaadu yi waa daanaka daal foofu noonu dafa mel ni kon ibaadu ak waxaa bi benn nit ki la ak waxaa bi benn nit ki mais lu ma jaaxal mooy mas nga gis Sénégal koo xam ne euh, mu ngi si biir Sénégal te askane boppam waxaa bi mos nga ko dajal koo xam ne mos na ne mu ngi si biir Sénégal tuddee boppam wahabi waa gis naa ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi askane seen bopp ibaadu wala salafi mais mosaguma gis man ku tuddee boppam wahabi mos naa gis nag ku boppam tiijaan ku tuddee boppam ñaseen ku tuddee boppam murit kon kooku soo ne murit xasoo ko danga ko tagg mais nag léegi nag lu tax ñuy jël ah man de gisaguma su nekkee gis nga tamit nga wax ma kooku fan nga ko gis ak kooku noonu est-ce que benn ñaar ñett ñett wala kenn sax tax nañu mën a tuddee lëmm ay groupe nit waxabi mos nga gis foo xam ne benn sénégalais tuddee boppam waxabi soo ko ah, gisul yow ban jàngat nga si am Bachir man de fi mu nekk nii sa question bi nga mujj posé waxaabi déjà man xaw ma ko xaw ma ko salafiste nag comme dama sama tukki yu mujj yi ci ay réewi naar laa doon laa ëpp li ma doon fréquenté am na lu ma ci xam mais waxaa bi moom man xaw ma sax lu muy fekk lu muy tekki man xaw ma ko te dëgg-dëgg ibaadu it gis naa ko fii senegal waaw gis naa yàgg naa koo dégg ñuy wax ay ibaadu rahmaan lañu mais ba tey man gëstuma woon ba xam ñoom fi ñu teg seen tànk waaw mais man de bu ma doon tuddee utal sama bopp tur man man ci waa sunna laay bokk man bu fekkoon dama doon utal sama bopp tur ci waa sunna laay bokk parce que lépp loo xam ne dafay dox sama diggante ak nit lu jëm ci wàllu sëriñ buy am yonent bi laa bëgg mu nekk sama sëriñ waaw te yonent bi ku mu nekk si sëriñ indication benn la mooy alxuraan ak suma waaw waxaa bi boobu ngay wax man euh, xaw ma ko ci dëgg-dëgg xaw ma ko dinaa dégg nag ñu koy wax mais xaw ma sax lu muy firi xaw ma dundin bi xaw ma ci daal lu bari ibaadu nag moom mooy ni ma la ko waxee yàgg naa ko dégg Sénégal ragné nañ leen ci seen façon solu ak seeni sikim ak yoy waaw mais man dal ci deug deug man mom bu fekkoon man damay utal tout sans bop bu ma laaj lo doon fo fété sunna la koy wax sunna muhammad sallallahu alayhi Wasallam, xawma xaw gam ndegam tontu bu jub na wala jubul waye lol dal lañ ci am luñu mëna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa question bi ni pour euh, groupe bi yep la tamit Euh, en même temps que nous dalal parce que Demain l'heure est grave l'heure est grave parce que Si on ba Sénégal 95% de musulmans Sénégal ce nga gis nit ne yalla na ñu Sénégal nga gis kessé nit di wax yalla na ñu bëss bo téggé sa tank Sénégal ñu la Sénégal gis maaxadi di joxe boppam ngir wax yàlla nee na yonent nee na feeti féetee kaw Sénégal kese ñay gis xalif xalifa tarixa taxaw ne am na ñoo xam ne dañoo am jagle ci ci diin bi naan daanaka dagganal ñàkk julli ñàkk woor senegal kese ñay gis sëriñ tarixa ne la ku samp tarixa ñu ne ci bindam bind bi moo ko bind ci biir bind bi mu ne maa tey ru jaami samay loxo te ba léegi si tarixam kenn jógu weddiwu ko senegal kese ngay gis nit di jiitee tarixa ne yombel xiyam yàlla taxaw yonent bi taxaw Serigne Touba taxaw ma romb leen jubal si Serigne Touba te su ma amut su ma amut gërëmam soxlu ma yërëmande yàlla Sénégal kese ngay gis télévision nit taxaw ci plateau né Serigne Touba yàlla la te plateau boobu rajaxuwuñ ko defuñu manifestation suba si Sénégal kese ngay gis ay nit taxaw biir télévision ne julli woor loolu impôt la natte Sénégal kese kese kese kese kese kese ngay gis nit ku am tarixa am ay taalibe yu bari ne sëriñ bi moo defar asamaan ak suuf te Sénégal du yëngatu Sénégal kese ngay dégg wax yooyu yëpp intéressé wut kenn waaye bës bu ñu nee mag Macky sàcc na lii sàcc na lee nga gis dëkk bi bëgg a tàkk donc ñun Sénégal kese ngay gis dëkk boo xam ne ñu ngi dëkk boo xam ne ñu ne ay jullit ñoo fa ëpp ay jullit ñu seen baati waroo nekk ci kaw te ñabar moo féetee lépp kaw ndaxte senegal kese ñay gis ay nit yu lay wax sama maam nee na te kenn mosul wax ne sama maam mos na juum ndaxte maamam jàppewu ko nit waaye nag su nekkee ci réew boobu noonu nag réew boobu noonu nag mu ngi mel ni màkka bu yonent bi nekkoon foofu juddoo fa màggee fa ñu dàqe ko mu génn màkka dem dina waa senegal nag mu ngi bëgg a niroo màkka buy yonent bi doon daw di rëccale diineem rëccale bakkenam senegal kese te Sénégal ñuy ne nag ñooñu ñooñu ñooy yóbbale ci yàlla dëkk boo xam ne mu ngi niroo màkk buñ doon daw di rëcc ñoo xam dañ leen doon téye di leen muggal di leen wax di ngeen delluwaat si lu ñu gëm wala ñu faat seen bakkan senegal kese moo niroo màkka boobu noonu te loolu nag kenn bëggu ko wax ku ko wax dee ku ko wax ñu ut la ku ko wax ñu rëbb la ku ko wax ñu fexeel la ku ko wax ñu yéene la dee ku ko wax ñu jam la ku ko wax ñu ne la danga di dingan mag yi mais kan moo gën a mage saxaaba yi te kan moo moom islaam ku yàlla te kan la yàlla yónni suñu ku dul yónnent bi salaa salaam mais question yooyu noonu suñ ko mënta waxtaanee suñu biir lan la ñuy waxtaanee Macky Sall budget xaalis diram dollar euro CFA kër gu rafet jigéen bu rafet oto bu rafet Sénégal kese la ñuy toog suñu journée bi yëpp lu ñuy waxtaanee lu ñàkk fayda la mais lu am fayda lu am ful loo xam ne biir sa biir bàmmeel xoolal sa caada lañ lay ñëkk laaj sa biir bàmmeel ndaxte dañ leen ne kuy sa boroom kuy sa luy sa diin kuy sa rasul loolu saada bi ëmb na ko téye na ko loolu mooy tawxiid yombeel xiyaam nag nga taxaw yàlla ñëkk xool say julli mooy xoolal escalier boobu noonu sa saada sa biir bàmmeel say julli yombeel xiyaam suñ lay àtte mais senegal ñaar yëpp dañu ne amul solo fuñ koy fayee doomu fa fekk liggéey ak joxe ak ndigal waaw foofu la ñuy taxawee sénégalais yi quoi mais loolu lan la lii nii moo tax waa Watawasaw Bil Haq te ñàkk mun munta ñàkk lii moo tax waa Watawasaw Bil Haq suñ doon rey ñëpp dina amaat ñeneen ñuy ñëw fekkaat ko fa fees ko parce que te ñàkk yàlla mun munta seetaan ñuy naxasal dëgg te du indi ay nit yoo xam ne dinañ maye seen bakken ci sabilillah defuñ ko parce que dañoo gis ne ñun dañoo doon ay guerrier wala dañoo doon lii mais dañ ko def parce que dañoo gis ne lii suñ ko deful tamit suñu gàccee la suba suñu gàccee la ndaxte suba su dul dara jar na sóoraale ndaxte suba du jeex te bés boo dajeek yàlla di nga xam ne lépp dëgg la asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu waa kilifa gi maa ngi leen ne jërëjëf maa ngi leen ne jërëjëf te maa ngi lay bàyyi ak mbokk yi tamit ndaxte xam naa dina am ñuy bëgg a ay questions wala dina am ñoo xam ne dinañ bëgg a contribuer waaye bëgg naa lépp lu ñuy def rek na xel yi di dal te tamit nañ xam nañ wax ngir yàlla nañ wax ngir dëgg nañ wax loo xam ne suba dinañ ko mun répéter suñu kanam suñu borom le débat est ouvert te nuñ ko nuñ ko doon wax rek yar ak teggin ak dal te yal na yàlla gërëm te yal na li yàlla fay. feeyale sa njaboot musal la ci safara musal ñu ci safara nangu suñuy ñaan suñuy julli te xeeñu ci lu baax ak lu mu gërëm asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu Basiir li nga wax yépp dëgg la mais xam nga Basiir li nekk Sénégal nii wax naa ko ci sama biir ay wax lu fi yàgg la lu fi yàgg yàgg yàgg la ba nit ñi dañoo dem ba jàpp ni lu légal la loolu Basiir mën nañu commencé xeex bi mais damay ragal ni du ñuy dem bay am résultat est-ce que ñun dinañ ko fekkee man moo tax am naa solution maa ngi koy wax ci suma message bi mu mujj dugal di ci wax euh, benn jafe-jafe bu mu amoon ak benn sëriñ ci affaire oto ne man fu mu nekk nii solution bi ma am wax nga ko sax sa biir message mooy yonent bi xam nga sallallahu alayhi wa fañ ko dàqee woon ba mu jógee fa dem feneen pour mën a sauver diineem man fi mu nekk nii dama bëgg dàq sama bopp man kenn dàqu ma mais man maa bëgg a dàq sama bopp pour mën a sauver man li may dund te it ku ci yàlla def sa wërsëg ñu mën laa dimbali ci ni ñuy dunde te yaa jàpp ni dëgg la duñ ko bañ ku ko ci yàlla dogalul tamit xëy na yàlla mën na koo dogal feneen mais man de ci sama bopp man li may dund te gëm ko te muy dëgg ku ma ci mën a dimbali naa la dimbali te yàlla tax dara mënuma cee jëlee nag ndax nit munoo ni am nga taw tawxiit ba pare di ragal man lu dul yàlla ragaluma ko yàlla dong dong dong dong dong laa ragal bu namee ci man dee pare naa bu namee ci man dund mooy loolu am ñàkk nit du ko teg boppam yàllaa fi nekk yor affaire yi di ko doxal léegi nag man moom fi ma taxaw comme yàgg naa ci àll bi te gis naa ci àll bi lu wuuteeg li am sama réew ci wàllu diine boo xam ne di nga ko mën a doxal ni nga ko bëggee te kenn du la ci sonal kenn de temps sax ngay am pour def ko ndax bu weesoo yëngatu yi ngay yëngatu ci wàllu àdduna boo ci jógee sa diine moo lay intéressé te dëgg dëgg dëgg man nu mu sauvé sama bopp ak sama njaboot ak ñi nga xam ne jege nañ ma te mu mën leen a dimbali man ci loolu laa nekk fu mu nekk nii takk naa sama bagage takkal naa samay njaboot seen bagage am di xaar nag waxtu wi jot ba ma génnee leen ci dëkk bi ñoom ñëpp dem yóbbu leen meneenum réew te meneen réew mu leen di yóbbu dem naa ba xam ni réew mooma na ma bëgg dunde sama diine mën naa ko fee dunde te duma am benn coonook walla sikki sàkk wala yooyu duma ci am dara te dëgg-dëgg waaw ñoo ngi lay sant nag di la gërëm ci sa invitation bi nga ma defal parce que lu mel ni am na solo parce que li ko li tax mu am solo mooy nit mën na koo déglu doxe fa yeewu nit mën na ko déglu doxe fa xam fi muy teg tànkam xam ne moom dafa nekkoon ci lëndëm bi mu ko dégloo rek yàlla dimbali ko mu gis leeru sondeel te bu ko toppee yàlla mun na ko yóbbu ba ci leeru làmp asalaamaaleykum wa ñu ngi sant ñu doon teewlu waxtaan bi yëpp di leen gërëm di xaar tamit question yi nga xam ne waa groupe bi ñoo koy lu ñu ci mën a tontu rek wala lu ñu am xam-xam wala loo xam ne suñu expérience may nañu ko wala suñu tawxiit danañ ko tontu te yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. yaa axi di la wax jazakallahu xeeran yal na la yàlla fay yal yàlla fay sa taxawaay bi te yal na yàlla yombalal sa ijra bi yàlla na la ko yàlla yombalal nga mën a yóbbu sa njaboot rawle leen won leen dëgg bëgg la leen dëgg te di leen tette si dëgg boobu noonu nga xam ne yonent bi si loolu la tette woon saxaaba yi rajaanu yal nañ yàlla may ñu koy jaamu. te bañ ko bokkaale dara nati ko ko bokkaale dara mom ba dee sey jëf yëpp nul yal nañu yalla may ñuy ragal safara yal nañu yalla may ñuy ragal safara baña nagu naagu te bañ jox nit yére bu ko upp ndax lu upp du rafetati yal nañu yalla may nit jam bu nek ñu tek ko place te hamne ne lu du dëgg neen la te neen ñu ci upp ci lañuy dox donc yal nañu yàlla may ñu bokk si ñu néew ñuy dox ci dëgg te dëgg boobu yal nañ si yar suñu bopp yar si suñu njaboot suñu dëkkandoo ak képp koo xam ne yéene nañ la jàmm euh, yaa axi maa ngi lay waxaat jërëjëf jërëjëf ndaxte wax yombut te ni ne ku wax rek feeñal sa bopp waaye nag yàlla bi may la may la kàttan gi ak cofeel bi ba nga wax ak ñun te xam ne yaa fi mujjee ñëw waaye nag def nga loo xam ne tamit ah macha allah macha allah te foog naa ne war na soññ ñeneen ñi tamit ñuy wax ngir yàlla ndaxte fii dañ fay nekk pour yeete yeew yeete ba ñëpp jëriñu si te yàlla tasaare xewal yi suñu biir ak ñëpp ñu fiy ñëw yàlla nañu yàlla xiir si lu baax dugal ñu àjjana asalaamualeykum wa rahmatulah wa tawaasal bil xaq ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax macha allah déglu na émission bi jeexaloon na audio yëpp sax mais macha allah seen émission bi am na solo am na solo waaw di wax waa ji macha allah borom invité du jour bi ah vraiment lu ma wax moom vraiment dugg na si xolu nit ñi waaw te lu ma wax yëpp dëgg la si mbiru tarixa yi ak nu nu jéngi gaay yi waaw am na ñoo xam ne nag comme danga leen di jéem a yee mais du nu mos a yeewu waaw ndax boo waxee nu nu sunu maam si la nekkoon wala sunu yaay wala sunu kii. waaw am na ñoo xam ne daal moom xam naa ni euh, nu abandonné leen rek bàyyi leen noonu moom mooy moom mooy solution mais macha allah émission bi am na solo lool lool lool lool. waaw sang bi jërëjëf daal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa xaq yéen ñëpp naa leen ku nekk turam ak santam ak wàccuwaayam ah, fekk naa fay audio yu bari macha allah ah, xam naa rek naa déglu incha allah rabbi xam a rek xëy bi moom moo demee noonu quoi. mais eh, macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa tawaasaw bil haq ñu ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm waa di kontaan ci émission bu baax a baax wax dëgg yàlla jaar na yoon laaj yi na yoon waaye tontu yi macha allah mbokk mi daal xam naa ñun daal eh, daanaka li ñu doon laaj lépp Bachir laaj na ko waaw am na solo lool xam naa di ñaanal mbokk mi daal suñu borom saxal ko ci alquran ak sunna waaw. saxal ñu ñun ñëpp daal waaw di siyaara bokk yëpp jërëjëf am na solo lool nag teewlu nañ ko bu baax a baax a macha allah émission bi vraiment neex na kii di laaj euh, laaj yi am na solo kii di tontu aussi macha allah tontu na vraiment ay tontu yu am solo leeral nga vraiment xeli macha allah donc xam naa ni. mooy sa émission bi vraiment école lay nekk émission bii nii Watawasaw bil haqqi école bu bu rëy la kenn ku ne mun nga cee gindeeku macha allah te di wax rek bu leen xeeb seen audio yu baax yi nga xam ne di ngeen koy def ci YouTube bi nit ñi di ko déglu gis ngeen nee na soxna maa Xadi bokk na ci ñu mu jikkoon a déglu mu mu mu mu koy déglu daal mu gën koo jox confiance ni moom ci lu mu nekk dëgg la donc. yéen watawaasu bi xaq ak mbooloo mi sénégalais boo xam ne góor ak jigéen yaa ngi taxaw ci daaw bi di dajji bidaa di saxal sunna lu ngeen xee lu ngeen def xeeb leen ko dañ naan géwél lu mu jiiñ ci xare bu reppee lu mu jiin ci xare xeeb ko waxuma la ak yéen nga xam ne yéen da ngeen a nekk ci yoonu yeneen bi sallallahu alayhi di bay waar donc euh, yokk leen macha allah si yéen a ngi ci yoon bu baax bi euh, lii am na solo am na solo vraiment nga nekk ci yoon bi ba pare yàlla gindi la li ko may chance nag li la may chance mooy li nga comme ni ngay waxee tawhid dafa jiitu sa sa sa xol yàlla moo la defal tawhid sa xol yàlla bu lay defalee tawhid defal la lumière sa xol da ngay nekk di wër rek yow tant que gisagoo dëgg gi doo mën a ta doo mën a taxaw donc euh, yal nañu yàlla teg si yoonu si mu sax ñu bañ ci teggit ba ilaahi yawmi diin sénégalais boo gis nag mu lonk ci ci tarixa yi li la ci lonkoon moo leen ci lonk parce que dañuy jóg di gis yàlla ñu ñu baare leen ci yoon ñu ne ñoom ñu ni ñoom ñu na ñu na ñu na dégg nga euh, gis théâtre boobu ñu defoon temps xale nga gën ko xaw ma ñu bëri ci yéen xëy na seetaanuñu ko mooy euh, euh, sëriñ boobu bas moo nekkoon sëriñ bi fàtte naa ay jàng yi tas na jàng yi tas na ni ñu doon def sëriñ bi ba di ko li ñu ko wax yow xanaa da ngay xumtal sa bopp yàlla la mu ni ñu ngi ma koy ji loolu théâtre la woon mais loolu moo am te ci Sénégal donc koo gisee mu nekk ci tariix yi mu réer ci mu am jafe-jafe Baay Faal yi euh, dëkk coono guddeeg bëccëg ñoom dañoo jóganti wuti yàlla gars yi ne la ñu na mais bu ñu defoon li li Cheikh euh, euh, Ibrahima Khaliloo wax yow sëriñ nga rek da ngay wane yoon bi wanal nit ki yoon bi jëm ci yàlla nga wetu bàyyi ko mu jàll kon tey jii Baay Faal yi duñ fi bëree nii ak cantaaku nii ak ñeneen ak ñeneen yeneen tariix yi taalibe yi duñ fi bëri Sénégal yëpp ay taalibee lañ li nekk ci ci ci li nekk tey ci sëriñ ci Sénégal ëpp ñu 5 pour cent donc 90 pour cent jullit yëpp ay taalibe la lépp ñàkk xam nag euh, euh, euh, ñàkk jàng alxuraan moo ñu ko teg ak ñi taxaw ci suñu yoon di ñu baari yegg ci yàlla ñii rek la professeur Bassir yal na la yàlla fay yow tamit si liggéey rafet na macha allah laaj yi dafa jóge ci xel jëm ci ay xel macha allah moo tax lépp rafet na Euh, ñëpp dinañ ci am kenn ku nekk euh, di nga ci mën a gis sa bopp macha allah di wax rek ñi nekk ci yoon yi vraiment nañu def ci ni suñu mbokk mi def libéré leen seen bopp libéré leen seen bopp dara gën metti ñu leen di euh, yen ay njañ nga commencé rek ñu ne la saxalal njañ sumil sa yëre ngay sol ay njaxas ñun ñuy sol ay yëri nit yow ngay sol yëri def nga jël kuur di dëbb sa bopp te sëriñ bi di jox bo doomam kuur di dëbb boppam doomi sëriñ bi di sol njaxas sëriñ bi di sol njaxas yéen ay nit ngeen ay nit leen jur sëriñ si ngeen topp ay nit lañ ay nit leen jur lu sëriñ si yelloo rek yéen bàyyi faal yi yelloo ngeen ko li doomi sëriñ si yelloo yéen bàyyi faal yi yelloo ngeen ko jóg leen ci naaj bu tàng bi baay booy jóg leen ci naaj bu tàng bi ngeen dem defari seen avenir jëm jaamu ji yàlla liggéey eh, sonn ci seen way yi ak seen njaboot moo gën ni ngeen nekkee réer gënul metti ni ngeen nekkee tere la julli tere la woor li la yàlla santoon nit tere la ko nga bañ jaamu yàlla nga dem di jaamu ay nit moo tax coono ji yëpp dal leen moo tax ngeen di dem di toggi di tàkki ay baas bu ngeen yemoon ci li leen bu ngeen nangu woon seen borom yilif leen kon da ngeen di am seen liberté totale xëy julli waxtu juróom woor weeru koor natt asaka boo ko amee boo mënee dem màkk loolu dafa yomb am ba pare toppatoo sa wayjur xool leen yaay ak baay mu neexee ñi la doon téye bi nga nekkee xale ba tey nga màgg nga war leen fay bu nga war leen nekkal ci naaj ñu nekk ci kër ga ndax léegi mat nga waxambaane nga ni nga ni dee fii nga leen di bàyyi nga dem di toppatoo wayjur jàmbur te kooku mu jur ay jigéen jur ay góor ñu war a toppatoo euh, këram mu mën tamit jël ay mbindaan jël ay boy ñi lijjanti kër tey jii ñaata ñi yore ay bâche di ko loué ñi di yore ay bâche di ko loué am ñoo xam ne dañuy ñu ay professionnel lañu ñooñu ñoo ñëw samp bâche yi tey ñooñu mën nañu féete ci loolu te ngeen daw ngeen delluwaat ci seen borom dem jaamu ji yàlla liggéey takk seen ndigg dégg nga di fas yéene takk ay soxna yore seen njaboot kër yu baax yi ngeen di gis sëriñ ci dëkk ci ngeen jéem cee dëkk dëkkal ci seen wayjur dëkkal ci seen jabar seen doom yi bëgg nañ dëkk ci kër yu rafet yi seen doom yi bëgg nañu nekk seen papa gis seen papa yi di dawal oto sa doom nekk si sa gannaaw yéen Baay Faal yi laay waxal yéen ñëpp seen doom yi bëgg nañ leen gis ngeen yore oto ba heure jàngi jotee ñu nekk seen gannaaw oto yi nga déposé say say njaboot li leen te ngeen lijjanti seen bopp seen kaaf gi ubbeeku na de ku fa des ci biir yow yaa fa desal sa bopp dégg ngeen tey suñu gan gu baax yi lu mu fi leeral lépp ci li ngeen nekkoon ci loolu la nekkoon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen jóge leen ci naaj bi métti na naaj bi ngeen di nekk métti na doomi gor nan lay fas yéene rek nga nekk waxambaane waroon dem peñewu sol yëre yu rafet nga correct nga rafet nga marqué sa empreinte sa jeunesse sa jeunesse yëpp nga yàqu ko ngay doomi gor nan lay toogee waxambaane doo rus sa moroom waxambaane ngay yori këll di ko yelwaan sa morom jigéen boo xam ne jànq bu rafet bi la romb nga xam ne yelloo woon na yelloo woon na la waroon na fanaan sa kër mu jural la say doom ngay dem di ko topp di ko saraxu gàcce góor gi yépp seen sëriñ si dañ ko jëlee ci yéen ngor gi yépp seen sëriñ yi dañ ko jëlee ci yéen delluwaat leen ngeen nekki nit seen boroom nee ne nit lay waxal defe naa ni émission bi tey ku mu yeewul defe naa ni li lay yee dalay jafe Eh, bàyyi leen sëriñ soosu ngeen topp du ñu ay sëriñ dañu leen téye comme ay jaam bàyyi leen foofu sëriñ soosu bas bu ñu bas bu ngeen génnee ci sëriñ si ñu torox bàyyi leen ñoom ñoom nit ñi nii torox taange gi ngeen torox ci seen àddina bàyyi leen ñoom tamit li des ci seen àddina ñu torox ko ndax bu ñu leen gisul ñoom mënuñu ñu am na ci ñoo xam ne dem du sax mënuñu ko nettoyer seen bopp sax mënuñu ko mbaax lépp leen yéen ko leen yéen a koy defal boo doon rindi xar taalibe bi mooy ñëw booy bale kër taalibe bi mooy ñëw booy takk baas taalibe bi mooy ñëw booy lekk ñooy indi raxasu bi ñooy teg ñooy teggi yéen bàyyi leen da ngeen leen a war a bàyyi ñu jàng àddina école la ñu jàng nan la ñuy yoree kër ñu jàng nan la ñuy baase comme que ñoom ñoo yore seen jàng ñoom ñooy def seen i ñoom ñooy woote ñoom ñooy sëriñ si ku mën a nekk sëriñ ngay woote ci ay jàng di balaa ngay toog danga war a takkal sa bopp sa tànt ba pare. takk say baas ba pare rocc teggi say chaise nga toog ci toogloo ci say gan bàyyi faal yi dellu leen dellu leen àddina bi dafa gàtt seen ndaw yëpp yàqu ngeen ko xool leen ni ngeen mel du ngeen sangu du ngeen sol yëre yu yu baax ay sagar rek ngeen di sol amu leen sax fi ngeen di fanaan seen àdduna yëpp du ngeen ko torox ba ne tot xale yu góor yi baleen sëriñ sii duñu ay sëriñ baleen ñii baleen ñi baleen ñi baleen ñi Bassirou damaa xaw a jàppoon moo tax sa audio yi sax euh, dégloo ko maa ngi déglu sa waxtaan ak waa ji mu naan euh, kii sëriñ si duñu may seen doomi taalibe aha kay euh, Fatou Laobé doomi xalifu général murit bi gaañu woon kii ku dëkkoon yëmbal waay ki gaañu rek te ñu naan supp gànje moo ko rey kii avant sëñ après sëñ si di maxtaar ki toppoon ci moom kooku euh, euh, doomam moo takkoon Fatou Law ba pare tamit doomi sëñ Fallou bi ki dëkkoon kii euh, doomi sëñ Fallou ki nekk kii Padois ki dëkk ki dëkk Padois man kooku sax man dama naan kooku tu moo nekkoon sama sëriñ ndax kooku daf ma neexoon sëñ Modou Boussa Dieng sëñ Modou Boussa Dieng kooku mooy moom mooy sëriñu Lawbe ndax awa soxna awa Gadiaga la takkoon yaa ngi dégg ñoom borom xaalis dañuy takk ñoom ñoom bu dee sëriñ murid yi fu ku rafet nekk rek dañ lay takk ndax dañoo bëgg jigéen ji rafet seen taalibe yi tamit dañ leen di may jabar képp koo xam ne ki sa taalibe avocat la wala commerçant la wala mbaam mu nekk homme d'affaires bu mag dégg nga képp koo xam ni que ñu ngi lay may sa doom te santoo Mbàkke rek day fekk borom xaalis nga dañuy may seen doom yi borom xaalis seen i taalibe borom xaalis mais pas taalibe nii rek ordinaire déedéet bépp taalibe boo xam ne dañuy ñëw ci muy leer na ne yow yore nga ay donj dañuy fexe ñu may la seen doom dañ lay kepp doo kooku moom du leen rëcc doo leen mus a rëcc ndax euh, loolu mooy seen intérêt waaw loo ko ziyaare euh, nga jox ko boo pare li ci des euh, doom ji yulli poos yi ñoom borom xaalis yi dina romb de mu tijaan ak murit ñoo ci yem bi bu am xaalis sa doom lañ lay may waaw deuxièmement tamit bépp jigéen ju rafet murit dañuy takk géwél di takk ñoom côté boobu amuñu problème boobu na nga rafet rek soo rafetee jog nga ma nga yóbbu seen xel. dañ lay takk bu la neexee nga dugal ko euh, xalif général bi sëñ Baara sëñ Baara sëñ Baara laa doon wax sëñ Baara kooku euh, doomam moo takkoon thank you so much thank you sëñ Baara doomam moo takkoon Fatou Law bi ñu am doom. yaa ngi dégg ba pare ki ma la wax nii soxna Awa Gadiaga ki ko tàkkoon sëñ Modou Bousso Dieng moom moo nekk sax moom moo nekkoon sëriñu law be xam nga li ma la wax képp ku am xaalis dañ lay képp ñu jox la sa doom ñu jox la ñu jox la seen doom dafa ñu boo nekkee géwél seen yoon nekk ci walla géer seen yoon nekk ci beeco lan la <laughs> beeco di géwél la beeco géwél la di Euh, euh, euh, ñaata ñu mu takk yëpp presque ay ay géer lañ xaalis Sénégal kay na nga am xaalis yëpp boo amee xaalis kay doomi Macky Sall sax Macky Sall sax bu la neexee nga takk ko loolu rek ñoom ñoom kii kii nu mu tuddee Cheikh du naaru Kajoor du la ku mu takk doomam ak doom yi suñ jur ñooy sëy est-ce que ay nawle lañ du ñu nawle xal Sénégal borom xaalis ak borom xaalis ñooy ànd waaw sëriñ si. képp koo xam ne nga leen di seet si ngay taalibe dañuy ñëw ñu la jox naa la sama tool jeex na. Euh, xam naa ne daal loolu koy boo demee Sénégal ñi ngay jëkk wax ni ñii ay étranger lañ mooy Baye Fall yi Baye Fall yi yore ay këll yore kaan bu doy waar danga naan ñii ay étranger lañ ndeysaan danga naan ñii judduwuñu Sénégal ñii amuñu fi ay mbokk donc trop tard nga gënu loolu nga nekk ci sa réew nga nekk doomi réew mi sa réew war la yaakaar nga war a yaakaar sa bopp say waajur yaakaar la mm, amul fooy amul fooy fulee lu dul yore ay këll di doxi tànk neen ngay poñe ñi ci oto yi ngay poñe ñi ñi ci mbedd mi ngay poñe ñi ci kaara bi koo gis waxuma léegi sarax sa xam léegi yéen du ngeen saraxulee da ngeen di poñe neen ñi pour ñu jox leen da ngeen di agressé neen ñi pour jox leen ay seen image yi ñaaw mu ngi ci internet bi dama bëggoon yéen Baay Faal yi ngeen dem xool seen image yi ci ci internet bi ngeen xool seen melo ngeen xool ndax nii ngeen war a mel dem leen ngeen xool ndax yéen nii ngeen war a mel ndax seen waajur yi bu ñu leen doon jur ndax ci lii lañu doon yaakaar ci yenn amul benn waajur bu boo xam ne kii dangay jur sa doom ngay fas yéene mu màgg sol dal la baayam mu mu muy mujjee ci ci baay falisme te boo ci xasee dugg rek bunt tox yàmbaa ñu ubbi la ko bunt naan sàngara ñu ubbi la ko bunt agression ñu ubbi la ko ndax dañuy fexe ba doo jàng ba doo am métier yow noo amee alal bi baax na ñu lay ñu ngay dem di di ngay dem di di dogaale nit ñi di leen indi ñu jox ñu ne la bul xool xaalis bi fu mu jógee xoolal rek suñ koy def nekk leen ay nit Baay Faal yi dellu leen ci seen kër wayjur yi ngeen xool kenn ku nekk nga dem sangu xool pantalon chemise bu rafet nga sol ko ay say dàll yu baax nga xool seetu nga xool nan nga nekkee nit nga gën a am confiance yow nga xam ne yow da nga war a liggéey tedd defar sa bopp jigéen ñi gis la bëgg la nga war a nekk papay xale benn un jour bàyyi faal yi émission bi seen émission la yéen ak waa cantaaku ñi ak taalibe seex yi ak képp koo xam ne kii te yaa ngi topp sëriñ ne mër ci ci sëriñ si mu gën a la sa ndey mu gën la sa baay te yàlla jàngalewul loolu bàyyi faal yi dellu leen ci seen kër wayjur yi te ngeen am ambition nag nit ki da ngay am bëgg-bëgg dem leen ngeen jàngi yan bu bëgg-bëgg àddina yéen li sëriñ si bëgg ngeen dem bëggi ko bëgg ngeen takk jabar kan moo bëgg takk jabar ba pare jabar ji nekk ci coono kan moo bëgg am doom doom ji nekk ci coono ah Youssou Ndour bu muy woyam woy doon woy bëgg naa am doom waaye euh, su su su añee du reer wala su reeree du ndékki yéen ñooñu yéen a moom woy boobu parce que yéen ku leen jox jabar euh, coono lay nekk ci moom ku ngeen amal jabar ku ku leen jox jabar bu bu soxlaa saabu sax mu saabu sax yéen mënu leen ko jox jabar te seen jikko yooyu bu ngeen amee doom bu ngeen ko ko mu sibal day am fexe leen ngeen dellu ci yàlla alxuraan ak sunna mooy defar jikko